Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salif mangla nuyu ak waa Diamond TV yëpp ak ñi topa de toppa waktu su ne ci waxtu bi nga ngeen de seen programme si ah di kontaan torop nag ci eh, invite bi ah, ak ah, question si nga xam ne moom nga am pour laajte te torop pour tontu Ah, bi ci njëkka nag mooy lu tax ma um, lan moo tax ma ma join APRC waaw APRC nag loolu moom soo ma ko laajee dina si kontana tontu bu baax a baax a baax a baax sax parce que APRC bala moo ñëw daf fekkoon beneen nguur muy nguuri PPP te nguuri PPP tollu woon nañ ci jamono boo xam ne euh, dafa nécessaire won sax pour mu wëcceeku parce que ñi nga xam ne sax ñu ngi woon PPP ci boppam neen ñu doon jawara pour seet naka lañ ko faa génnee waaye bi ko sos civilian lañ amuñ won wiyee pour buñ ko mën a defee loolu élection rek <coughs> te élection mënu jawara parce que Minister of Local Government Local Government and Lands ñoom ñoo ñoo amee woon yëfi eh, elections permanent secretary bi <coughs> of ministry bi mooy woon di returning officer comme tey nga ne Alieu Momad Njie rek mooy woon permanent secretary bi so kon dafa meloon ni refali bi moom playe la xam nga boobu lu la ko fo su fekkee ne sa sa sa pilier dañ ko foofu pelante waaw su ko defee nga yaxa maj loolu booy woon li nga xam ne ci gàttal rek noonu noonu noonu la meloon so corruption dafa nekkoon loo xam ne noom la woon it was a practice la woon boo xam ne dañ ko acceptoon mais dafa am taam boo xam ne nii foog naa ne bi xale yi juddu sax ci eh, twenty-eighth century ci twenty eh, two thousand year sax ñoom dégg nañ loolu ne xar bi fi ñu ko takkee laa lekkee loolu nag mu nekkoon eh, jikko boo xam ne dañ ko welcome woon fii soo mënutoon a tappale soo mënutoon a sàcca aleli nguur gi aleli réew mi sampa ci ay kër takk ci ay jabar jëndas ay moto di ciikar ciikari si biir réew mi di mbàccax mbàccaxe de de de ku ñàkk a fay la jàppe sax foog nga mën a def loolu su ko defee neñi ñi respect la waaw fii si biir mi de doo dem fen duñ sàcc xaalis bi sa tukki de fii dañoo toog fii si biir réew mi suñ boutique ñu ko gis gars yi di ko def di ko defee nag ci anam boo xam ne anam bu ñàkk a tegin la parce que réew mi si jamono boobu noonu ñaari referral hospital lañ amoon. benn di main one bi mooy Royal Victoria Hospital RVH léegi muy Edward Francis Small Teaching Hospital ca Banjul ñaareel bi di Bansang Bansang Hospital li si des yëpp ay clinique lañu woon Serekunda clinique clinique all over waaye referral hospital ñaar rek la woon mu nekkoon nag lu doy waar parce que sax amoon na yenn villages yoo xam ne ñoom clinique sax amuñ ko so pour ñu transport seen nit ñu feebar xëy na jëlee leen foofu ñoom fañ nekka te yóbbu leen fii leen war a yóbbu fi ñu war a dem sax xëy na dinañ mën a dee ci diggante bi loolu dee yu bari am na si surtout sax jigéen yu war a wasi nag yi so mu nekkoon daal lu doy waar lu ëpp a waar sax wallahi kenn xamut lii lan la éducation système bi kenn xamut lan ma high school juróom la woon fii fii ci Banjul area Greater Banjul bi fii juróom St Augustine's high school Muslim high school nosrat sempitas, Peters waaw high school comme ay entrance mun nga koo paas sax te dem high school da ngaa dem secondary school nga dem ba fam foo jëlaat secondary four exams te dawat xëy na yàlla loolu mu la nga mën a dem si benn high school te boobu da ngaa delluwaat form three nga demaat form four dem form five so yow literally yow sa life yëpp di ko spend di jànga te yow ba léegi agaguloo six form sax de waaw form five la rek dina la at yu bëree bëree bëree bëri ak coono bu bëree bëree bëree bëri bëri indi en mën na la discourage jigéen ñu ci bari seen education was not even relevant waaw paskidanya dan Yose. Wow. Bari na si provinces ni Gahamne, Ali Childs married me. Was, it was in Yet for 13 years, 14 years, may na ila jikar, 15, sayinga. Wow, betahna, na, kilifay, ti jamono bobo, farata lu won jangi jigen parce que dañu ne kuy sey la waaw family bi so duñ dan wori ci jigen ni góor ñi lañ daan gën a faral di jàppale pour sen éduc pour seen jànga parce que ñoom ñooy des ba pare ñoom ñooy maintain famille soo neen bi so lii yëpp nekk fi ñu dem be nga xam ne ni state bi moom mënatut a contrôle sax and own enterprise am lu mel ni ñoom GPM bi lu mel ni ñoom coopérative lu mel ni ñoom utilities company bi muy GUC à l'état yooyu yëpp jaay ko parce que gis fi ñoom ay UHC ay MSG ay yëpp nekk na ko ñu dem ba nga xam ne jamono dox na ba 1985 ba ñam mooy jamono ERP Economic Recovery Programme loolu nag li ko waraloon mooy World Bank bi ak IMF ñoom ñoo ñëwoon wane ne Gambie dañ default dañ leen lebalal lebalal lebal ba Gambie moom ñoo fay léegi ñoom ñoo ñëw nekk in charge pour contrôle pour recover suñu économie bi fañ ci njëkkee woon mooy pour wàññi liggéeykat yi nga xam ne moom la nguur gi amee waaw muy redondance demoon na si sax ba lu ëpp si ñetta fukki junne over thirty thousand Gambians génnee nañ leen seen liggéey pour wàññi nguur gi ñim employé ñim ñim ñim ñim jël pour di leen war a fay <coughs> loolu nekkoon fi nag lu garaaw a garaaw a garaaw sax wax dëgg na yàlla jamono boo xam ne nii sax maaloo ñàkk fi ak yooyu waaw loolu yëpp ne ko ay problème problème yoo xam ne daal te jaaxali pàccaran fi woon de waaw ma ko jaaxali pàccaran fi woon Nigeria si jamono yooyu dañu daan may crude oil twenty thousand barrel la ñu gaa daan jox twenty thousand barrel loolu la ñu daan jox parce que moom ñoom mënuñ mënuñu may xaalis léegi dañoo may crude oil boobu su ko defee ñu loolu ñu seet naka lañ ko def wala dañ ko refine wala ak luñ ko munti di def waaye pour ñu mun ko dimbali ko twenty thousand barrels loolu jox naa la um, assignment boobu pour nga def research bi pour nga find ko loolu bañ nañ ko sax ba gars yi Freetown lañ daan yóbbu loolu di ko séddoo waaw génne ko fii yëpp demoon nañ tam bi nga xam ne tam uh, nguuri Jamani ñoom dañu wanoon ne ñoom duñ um, stop pour dimbali réew yi Gambia parce que yaa ngi dimbale réew moo xam ne boo ñëwee li nga ci Mercedes Benz ci oto loolu loolu rek mun sort out the problem of the um, dëkk bi so kon mu ngi dekabi ni wow bi poowut waaw da misplace seen priorities yi mu nekkoon lu doy waar di nga gis ministre bu dem uti fonds fonds laa la wax de ñu jox la ay ak ay boos de nga jël ko nga ut ko ci néewi nguur gi ñu jox la ay boos nga ñëw jël boos yooyu def ko sa boos sa sa oto sa sa sa bopp sa bos nga xam ne yaa ko moom muy daw ci biir dëkk bi fii nii di ko gis muy indi xaalis bu laa bu laa njëriñ yow kenn rek waaw loolu tam am na fi <clears throat> soo mu nekkoon daal lu doy doy waar ba nga xam ne ñun ñëpp daal doy la woon nañ. doylu woon nañ sek sek sek sekk sekk sek sek ak nguur nguur république bi waaw góor jigéen mag ndaw nag naaw loolu mu waroon waraloon nag génna bi commencé xale yu góor yi commencé di génna te daan dem sax si gaal yi sax di stowee ci gaal yi mooy gaal yi daan ñëw di taxaw gaal malo maalo yeeg yooyu gaal yi sukur yeeg yi daan ñëw booy si dañ si daan stowee ndeysaan ba suñ dem si yàlla si suñ benn Eh, kapten bu national team bi muy Sol Samba léegi Sol Samba ndeysaan moom gaañu woon na ci eh, ci trips yooyu noonu lu mel noonu sax fa la ñàkkee woon ba kanam ndeysaan imaginal rek national team dem di stowee so pour wane woon rek how bad the situation was how terrible the situation was Lampa wallahi fi sondel moo daan gën jar si dëkk bi than anything else Wow. ba afta bi jamono yi gën a dox si la généralité yi commencé di ñëw dëkk bi foo rombaal to ngaa dégga nooy dëkk bi mu fees tep ak noise yooyu généralité parce que di nga dem ci ay place yoo xam ne ay dëkk yu dëkk yu ndaw yoo xam ne o even ay bàkkoote fii fisa <coughs> di nga daan dem ay one week doo gis lampa ay three days four days doo gis lampa su lampa taalee benn xafana wala daf dañ ko daan celebrate su laaj bi ñëwee ñëpp nga dégg yuuxu yee dañ ko celebrate waaw mu taal benn one hour ba half an hour forty five minutes mu fayaat waaw fayaat benn ñaari fan ñetti fan wallahi ba taxoon nit ñi shopping biñ daan def di jënd ay bagage di dugal suñ firi ak yooyu noonu foofu la stopee parce que di nga jënd sa ay jën jënd sa ay bagage ak yooyu yëpp dugal sa biir fridge lampa du am bagage yooyu yëpp yaaxu so waral nit ñi fi mu nekk daan di di di di dem di soppi everyday every day ngay dem marché every day nga dem marché waaw parce que noonu nga mën a lu fresh wallahi surtout wesum bi garaaw ba bugg a dee nga dem ci lopitaan do feebar dem ci lopitaan doo am faj garab bu la faj garab bu ñëw ci lopitaan bi boo xam ne ko indi ci lopitaan bi docteur yi fa nekk ñu ngi am pharmacie kaw buy garab di ñëw pour l'hôpital bi daal yóbbu nañ ko sen séddu nañ ko yóbbu ko seen pharmacie yi waaw so léegi yow so demee ci l'hôpital bi suñ laa faj léegi garab biñ la war bindal dañ laa bindal na demal ci pharmacie nangam boobu mooy seen pharmacie yi su ko defee nga dem jënd ko foofu waaw loolu nag su fekkee sa am nga xaalis bi la de waaw soo amul bi lu nga saaka pexe nga seet naka nga def loolu seen affaire ne politique bi ndaw ñi bokkuñ woon jigéen ñi bokkuñ waaw you have to be forty years and above nga door a dugg si politique nguuri Jawara nekk na fi ñetta fukki at benn jigéen moom musa nekka ah, ah, ci nguur gi nguuri Jawara mooy honorable Louise Ndiaye waaw te itam politique political atmosphere bi fii si biir Gambia benn jigéen moo nekkoon parlementarian waaye muy léegi ñi ma sata saane bu ñan waaw entire country waaw wallahi can yu imagine benn li ma la tuddal lépp benn la si nguur gi moom benn jigéen a fa nekkoon donc moo fa musa nekka PPP PPP government benn jigéen rek a fa musa nekka muy honorable Louis Ndiaye waaw parliamentarian benn rek la woon tam mooy woon léegi ñi ma sarta saani bo jàpp so jigéen ñi bokkuñ politics xale yi moom at bi dafa ne woon sax twenty one years so amo ñaar fukki fan ñaar ñaar fukki at ak benn doo doo sànni karta so boobu dañ ci génne woon xale yi mu nekkoon daal yëfi yaataayu ba def lu leen neex lu leen neex ak yooyu ak li ñu wax si jabaru jabaru jabaraade yëpp de ak li pir pir nguur gi yëpp de nii la fa demee woon nii nii la fa demee woon waaw te it invite koo xam anybody koo xam ne fii la ne ma li wax ni du dëgg ah mun nga maa challenge xëy na tam mun nga uh, request lulu o oh, nga def sa audio o oh, nga defar sa video nga taxaw nga challenge ma o nga invite ma to a debate ñu toog ñu waxtaan ñu wax lii waaye li ma wax nii fax la te <laughs> nit mënu ko weddi so loolu moo waraloon nag um, uh, eh, eh, révolution bi July 22nd révolution bi ñu am ba moo am nag man wax dëgg ne yàlla fekk ma fii si biir réew mi because bokkoon naa ci xale yu góor yi nga xam ne ne waaw ok ndegem ñoon mënuñ koo méeg fii si suñ biir réew jàng nañ school ba wàcce nañ school high school te mënuñoo am liggéey mënuñoo defar suñu bopp mënuñoo njëriñ suñu famille yi ah kon nag xaaral ñu bokk ci ñi génn tam dem uti ko ci biti waaw <coughs> so bi euh, révolution bi take place man fekkut ma fi waaw waaye nag euh, ñaari at astafurlah euh, three years after 1997 sila Silanji kañoo di Gambia ma Gambia nak, magis Gambia bu magis Gambia tali bi parce que tajab ta balaa révolution bi di tali tali bu baax benn rek la fi woon muy Banjul te te Westfield lay moon waaw continue Westfield from Banjul to Westfield mooy wodi di ni tali bu baax fii Gambia only. ni Lawah, wax ni tali bu baax ma ne ul ni wax capital letters on the line Banjul Serekunda highway mooy woon di ni tali bu baax te Westfield la emoon loolu dama nekk di ko répété pour nit ñi dégg ko baax baax baax man bi ma ma gis tali yaa ngi xoteeku Costa Route ak ma ne déedéet waaye Gambia li Gambia la ne ma ñëw di gis ay lan GRTS télévision nga xam ne ñun senegal lañ mos a seetaan xëj na sax comme time nawet bi nii su su su affaire yi bonaan nii weer bi bonaan Guinée Bissau lañ daan làmbaatu dëkk yi yëpp amoon télévision ba mu des ñun waaw moo tax tey ñun suñ artistes yi mënuñ ñoo satisfaire suñ ñëwkat yi mënuñ ñoo satisfaire suñ um, uh, comedians yi mënuñ ñoo make they are not even funded to us because lii yep xamee wuñ ko woon Gambia di ko daan gisee Gambia Sénégal yi bu Sénégal rek lañ daan xam lañ xamoon musique Sénégal ña seen ñaw yeeg seen lu nekk saabu saf fii kërëb kërëb nii anything Senegalis, that was ours demoon na be nguur eh, nguuri Sénégal dañu may two hours ay one hour eh, eh, English news at eight o'clock every eight o'clock Monday to Friday dañu daan jox English news mooy ñoom Babacar Diagne ñii te nekkoon fi ambassadeur Sénégal fi afta afta Josuwaay Ligo moom moo daan def loolu ak ñoom Soxna Dieng ak yooyu ñoom ñoo daan def read newspaper English léegi ñu mënu ñoo fàtte tur ñoo ñoo ko daan def ñoo lañ daan loolu duñ ko mën a fàtte gis nga even ñu ñoo jox uh, news in English because xam ne ne ñun amuñ télévision te ñun ñoom lañ dee seetaan so yërëm nañ ñu sax bi ñu jox news bi in English so moom ma gisee télévision ah ne déedéet waaye ma gis université waaw ma ne déedéet waaye ah te balaa ñu agsi foofu yëpp président Jammeh euh, ak nguuram dañ ñëw révolutionniser the system tey comme li ma li ma njëkk wax fii di wax ne early child marriage beeg yooyu noonu liñ ñàkk a éducation euh, deprive the girl child di euh, female girl girl girl child education bi ni ko ko deprive yooyu yëpp dafa ñëw mu xeex ko te daf ko xeex civilizedly flawlessly without effort free education for girls léegi yow su fekkee ne da nga filoon ne yow yaa ngi fe yaa ngi spend xaalis bu bari sax si sa doom bu jigéen sax pour mu jar a jàngaa te ku dafa war a sëyi soo yow wóorewuloo si about loolu léegi nguur yi wan na la ne léegi yow yi doon nit wóori solal ko uniforme moom rek mu ñëw jànga si waaw amuloo dara pour fay amuloo dara pour fere si kooku buur mu jàng soo léegi gis nga civilized li revolution loolu la day def dafa ñëw indi ideas dafa isi policies and programs, yoo xam ne ni dafa njëriñ doomi aadama yi soo gis nga pejab nii la ñëwee di xeex early child married and ignoring the girl child's education loolu la njëkka loolu la fight because programme bi mënoon naa nekk free education for boys and girls de waaye because of boys yi ñoom ñoo leen prioritise woon boobu mun nañ ko put on the back burner right now let's deal with girls ñu mun a eradicate loolu su ko defee loolu mun a stop gars yi caay bi dem jàngi waaw ñu prioritise ko soo gis nga loolu tam ne loolu loolu nekk a boo xam ne tey gis nañ njëriñ li tey Gambia ngay gis njëriñi loolu foo dugg a jigéen ñaa ngi ne ñëpp ngi jàng jigéen ñi gën a jàng tey si school si sa right now there are more female enrolled than male right now jigéen yaa ngi jànga te am place jigéen yaa ngi bokk ci politique ñu ngi indi ñëw ici vice président bu jigéen waaw te longest serving sax waaw am ay ministres xale ndaw twenty five year old mu def la ministre gis nañ ko fi si Fatim Badji gis nañ fi xale bu ndaw Momodou Sabally nekk minister of presidential affairs waaw ah, and secretary general waaw gis nañ fi euh, xale yu ndaw ñu indi leen as député as député coopted members muy ñoom Sidi Ndiaye mi tey nekk um, député speaker mu ñoom Babou Guèye Sonko mu ñoom Pierre and lot ñoom Fatou Camara Yep, révolution below the la def di wan nit ñi we are inclusive te i am programme boo xam ne i am continuation sooy waxooy continuation Now what you génnee xaleel kon Come waxuloo waxi continuation soo ci dugalu xale yi rek waxuloo waxi continuation youth parliament you know, you know um, national youth council you know oh come on the whole program revolutionized the whole thing mu mel ni du woon Gambie boobu suñ armée bi amee suñ sécurité réew parce que balaa loolu si gendarmerie yaa ngi fi woon Nigerian si yaa ngi fi woon ba pare British yaa tam di baat British baa ngi woon kur da da da yaa ngi toppatoo seen gis nga révolution bi ñëw ba loolu yëpp ñu am suñ armée Gambie National Army you know ak jigéen waaw ba pare sécurité bi ne kur Gambie am moom boppam am amee boppam Gambie di doxal euh, doxal ne Gambien loo xam ne lu war a rey la biir Gambie fii Gambien si ñoo ko rey mu dee luñ fi war a def Gambien si moo ko def luñ ci luñ ci soxla Gambien si ñoo ko liggéenti mooy alhamdulilahi rabbil alamin générateur si tam ñëw stade di ñëw électricité bi commencé di tane ne emutoon ci tane sax waaye dañ koy yóbbu tuddi eighty seven percent of the Gambia including clean drinking water waaw mu àgga to eighty seven percent now child mortality rate bi xale yi daan juddu di dee loolu dafa nekkoon at ninety five percent ninety five percent lu foofu la ko révolution bi fekka now within very short time nguur euh, di revolution mu mu reduce ko to five percent ninety percent la si reduce within a very short space of time loolu waral population yi Gambie bi increase to two million waaw because xale yi daan dee léegi deetuñ waaw jigéen ñi daan wusin di dee di seen doom yi di dee ak yooyu because garab yaa ngi fi bagaas yaa fi matuwaay ya jël nañ ko pour make sure ne lulu health sector be takkul nengo. ko parce que suñ bàyyee xel health secteur bi moo ëppa ministres yu fa jaar so que soo ñëwee mënuloo def sa liggéey rek daxa nañ la génne nañ dafa ñu si waat keneen waaw joxaat keneen chance bi kooku tam dof dof ñu daxa ko mu génnaat waaw so lulu mu ngi wane rek ne loolu priority la woon pour nit ki am wér gu yaram because a healthy mind is always found in a healthy body Wow. xel mu ci yaram bu nekk waaye yaram bu mel yaram bu wérut loolu xel xel mu du mun a màcca waaw loolu la angale wa noonu soo loolu bokk na loolu yëpp um, soo leen ko soo ko tënkee rek ah loolu foog comme entitled pour nga war a bokk ci loolu lu mel noonu ou pour support lu mel noonu rek foog ma ne kon yow you are a patriotic citizen te patriotic citizen like Pa Modou Mbow nag man ba ma gisee loolu si laa man bokk naa kenn yóbbuwu ma kenn takku buum suma baat bi xëcc ma yóbbu ma kenn itam forcé wu ma teg euh, fetel suma bopp bi na ma kaay mbaa nga jël paaka wéer ko suma biir bi mbaa suma diggi garaaw gi ne ma jaaral nii demal APRC déedéet man maa demal suma boppa because li ma gis la mu totally different mu mel ni guddi ak bëccëg diggante APR euh, APRC nguur gi ak euh, nguuri PPP waaw loolu moom mooy li nga xam ne ci gàttal loolu moom moo entaillé pour ma ma ma ma bokk APRC euh, su ma ñëwee si sa ñaareel laaj bi nga xam mooy nga ne ma kañ mooy kañ laa njëkka nit président Jammeh waaw loolu nag foog naa ne loolu ngi xew in 2009 2009 ah dañ doon holiday man ma suma doomi ndey suma broda di Modou Moussa Thiam di sa mag yow Salif ah, ak Baye Baka Baye Baka Dramé Ousmane Dramé ñu ngi fi woon on holiday léegi ñu toog nag ca kër Baye Baka jabaram ne ñu waaw yéen yéen a ngi ñëw rek yéen a ngi naaw di ñëw rek ñuy holiday addu ah, la jëm yëngatu na ngeen jëm a def dara si dëkk bi nii Makanya while Lulir nyunyep nyuruh nyunyep agree ne lulu lulu is a very good idea. No muru musa champion ya, anda si lulu na wow Why not you def a eh, thank you Mr. President Carnival? Lulu ker bay bakalen ko la sant santoy bax fofu lañ ko waxe. Jabaram mo ci ay debi gaay nanguto lulu. Muru musa cham sa mak moma ci dugal moma o. Oh. Dama boy gaay ne wal. Dama li lañ nekk di toga. Dañ bu ko def li pour wara wax president bi jërëjëf. Thank you, Mr President Carnival pour dox from Westfield KMC ba Banjul def ko in a form of carnival dem aj euh, euh, July 22nd Square dem dem def fa suñ manifestation pour wax suñ président ni ko jërëjëf parce que liñ fi gis si transformation ah institution si ci euh, infrastructure ci education health you name it lii is unprecedented président Jammeh di saaf na pour ñu wax ko jërëjëf may leen lii de xam ngeen ne su fekkee ne dara desul pour ne APRC mbiram rek la xam ngeen ne nii du leen pour laaj ma dégg ma wax kay ne ma waa lii lii la ñoo def ma ne la acala waaye doo la ma laaj ndax boo daa bokk nga da bokkul ma ne leen maa ngi ci digga bi comme euh, durang nga teema ko durang soo nii lañ demee nag kër jisos lañ daan mitine time boobu jisos mooy woon IGP bi Maikenburg Inspector General of Police moo ñu indi ay kiram sax parce que dañ demoon foofu pour une ut fa pamit pour woowee pamit pour bi lifin mu ne suma daka yéen li ngeen di def nii du ma leen jox pamit rek dama ci boka so nii leen daan def ma mu lu meeting si transfer from kër Baye Baka to kër Jesus kóotu foofu noonu rek gannaaw kóotu police station bi fa leen daan meeting ne so radio advance itam man maa daan dem man Modou Moussa man maa daan wax olof ci angale Mourou Moussa wax ci soose euh, ci ci pël am ndam abidi wax ci soose ak yooyu noonu baa Bakar wax olof so lii leen daan def so ni leen ko def within three weeks ñoom mobilise tens of thousands of Gambians wallahi loo xam ne bu tuuti président Jammeh dugg fa bu tuuti APRC dugg fa bu tuuti nguur dugg fa loolu ñu ko organise ñoom Jaliba Kuyate yëpp artistes yëpp ñëw ñu organise transport moto yi truck yi ak yooyu mobilise you know dem euh, tase KMC Kanifing municipal council foofu lañ jógee ñu dox nag waaw dox di play musique di carnival di festival occupy benn leen bi waaw bi Banjul waaw dem nag fekk sax bis boobu noonu euh, président président Jammeh dafa waroon dem ECOWAS meeting waaye dafa mujjee cancel moom demut mu yónni Adja Aïssatou Ndiaye Seydi di vice président kooku moom moo dem moom mu toog because mu ne loolu amul benn président mu sax am loolu. sa sa yuut si ñëw tam góor jigéen mag a ndaw ñëpp génn si ñëw taxaw pour wax la tànk yow mu ne loolu moom dafaa dem toog xaar loolu waaw ñun bañ maajee nag ba aga bi bajul ba aga si square bi moom si la génn state house ñoo féete ak ñun toog ak ñun foofu waaw boobu mooy the first time ma shake hands with him because man ma doon maa joxe woon speech bi in English bàyyi ba joxe speech in wolof loolu boo leen demee jiyaat Thiès di ngeen fa fekk loolu seen archives as a référence fii lañ joxante loxo fii lañ embrassanté fii lañ fii la xamee ne cofeel bi fa la nekk because gis nañ ñun liñ def yëpp te ñëwoon taxaw laaj ko comme APRC suñ ko doon def dañ ko doon laaj xaalis da o oh, mu jógee ci APRC budget or something ñun laajuñ kenn xaalis kenn leen laajut xaalis waaw ñun ñoo jóg defal loolu suñ boppa te niñ ko defee def nañ ko effortlessly te xappul now successfully benn nit sa gaañuwu fa benn benn injury sa amu fa because ñu ngi amoon ambulance yëpp ñu ngi toppam because it was well coordinated mu ngi woon tam benn problème parce que problème taxutoon ñu jóg sax thank you rek lañ ko doon wax mooy woon thank you Mr President am um, carnival biñ defoon in 2009 boobu mooy the very first time ma mit président Jammeh ah su ma ñëwee nag ci sa beneen laajte bi mooy Nakal how was my candidature as the uh, mayoral aspirant for KMC. Suma candidate kam dama taxaw KMC uh, ci jongante bi passé ni rek mayoral election bu 2020, 2023. Well, uh, alhamdulillahi rabbil alamin lay wax. Santa yalla bu bare bare bare bare bare di dolli lima ko santa. Parce que APRC dafa split ñaar Yastu alliance mooy ñi dem ci ak ñi ñi dem ci Adama Baro ak nootu alliance mooy ñi nga xam ne dañ toog siisu na ñoom demuñ fenn kenn du leen yóbbu man nag foofu laa bokka pas dama bokka si ñu sax parce que alliance si suma gémmiñ gi la génnee waaw man la président Jammeh yónni si yaaraar pour ma dem wax so obviously um, <laughs> depuis booba it ñu nekk ci loolu be yàlla ñëw 2021 si la def um, lifin boobu noonu announcement bi octobre 25 octobre octobre 15 2021 cakani laay ci la defoon announcement bi ne uh, jël na ñu executive parce que executive bale boobu ñoom demal nañ seen boppa ca Adama Barrow so moom liggéeyu ta ñooñu parce que moom yónnewul leen te gars yi yégaluñ ko li ñoo def soo ko mu ngi mel ni ñoom nañ sarta léegi mu jël ñu ñoom waaw tànnal ñu ñun eleventh si kanam it doomi Adama yëpp na ñi ñun ñooy ñëw exécutif am bi moo liggéeyal ñu commencé man nag mu jox ma ci spokesperson liggéey ma amee làmmiñi parti bi so jox na nag ñu ñëw ba jongante fa presidential election jógee fa ñëw si national assembly yàlla jox ñu juróomi député ñu ñëw ci councilors election bi yàlla jox ñu fukki councilors ah mu dara desut nag pour mayoral ak chairmanship léegi nag mu nekkoon loo xamee sax lu ñu doon laam-laamee la sa witin man aw ma woon benn intention pour taxaw parewu ma ko woon xalaatu ma ko woon wel amoon na benn ñaari nit ñu ma ko doon wax sax ci suuf ak yooyu waaye dama wax la woon nii rek ak ñu bi ko expecté ma woon ne man loolu dama ko def te it boo leen bàyyi xel ne man maa jee déclaré suma candidature man maa mujjee fulla waaw parce que nit ñi xamoon nañ ne Bakary Bakary Badji mooy taxawal NPP te xamoon nañ ni terme Talib Bensouda moom mooy incumbent moo fa neka moom da moo mooy taxawaat pour pour UDP pour defend euh, pour euh, euh, defend position am loolu nag mu nekk loo xam ne ah, ñoom commencé woon nañ seen seen campagne sax depuis tamit councilors yi parce que xam nga councilors élection yi moo jiitu councilors yi ñoom ñoom lañ njëkk a def ba pare after ñu def mayoral ak chairman so ñoom because of ñoom xam nañ ne ñoom ñoo ñooñuy candidate yi ñoom dañ daan génn di àndaa seen councilors yi di campagne ale di defaale seen ay affaire ci roon fekk man xalaataguñ sax parce que ñun ñu ngi amoon kenn benn ñaar ñoo xam ne ñu ngi leen doon euh, tap in sax pour euh, taxawal leen waaw bi gisee nag ne nag fi mu nekk ni waa KM suma regional executive man si KM laa dëkka suma regional executive bi nag ñoom ñoo toog ne ñoom Pamoudou Mbow moo leen doy gars yi sol seen dalay di régional exécutif jiite ko di ah, Youssoufa honorable Youssoufa Diagne ah, kii buté advice am ak ak few orders ci caaman yi caaman yi ah, constituencies yi suma kër bañ ñëwee suma kër ñu dantee wane ne ñoom seet nañ ba seet waaye gis nañ ne ñoom man maa leen doy pour ñu tax ma taxaw pour kéem mooy leen ha loolu mu ngi tombé suma njaboot gaa ngi fi suma taawang fi ak jabaram ak seen seen doom yi may leen toog leen gars yi toog fekkee meeting bi may leen lii de is an honor pour suma région ñu waxuma parti bi de waaye suma région ñoom ñu toog xool région bi yëpp ne yéen man maa leen doy pour ngeen taxaw pour ma taxaw pour pour pour euh, naka leen ko waatee pour mayoral may leen loolu la du ma leen wax waaw loolu du ma leen su fekkee ne sax. Euh, dafa am ñeneen ñoo ñu fa nekkoon sax pour war a dem bàyyi élection sax euh, pour war a dem euh, primary sax ma ne leen ma I don't I will welcome it let alone bi nga xam ne amu leen man rek ngeen ci tànna ci whole entire région bi mooy leen loolu fees na suma biir jërëjëf jëf dinaa ko def so ni laa gaa yi wax ne baax na léegi ñu dégg nañ ci yow kon may ñu ñu dem because loolu mooy seen wareef ñoom ñoo war a tànna as the region ñoo war a tànn seen candidate ba pare hand over ko to the national executive national executive vet individual bi seet ndax kooku criteria yi nga xam ne moom la indi independent electoral body bi loolu la moo laajte pour candidate bi ndax loolu mut na ko soo ñu bañ ñooñu tam bañ seetee loolu ba mu leen doy ñoom dañoo hand over loolu du Babili Mansa ki nga xam ne mooy parti leader bi su ko defee kooku def endorsement bi naaw bi loolu xappu ne nag loolu take place ci lañ jal si wàcc man wan ma ne ma waa loolu endorsement bi am na ak yooyu noonu yëpp ñu ñu commencé euh, prepare pour nomination waaye nag mu nekkal loo xam ne it ma ko ci benn boor parce que tey soo gisee Pa Modou war a taxaw di war a am five thousand one hundred votes loolu lu ko am na lu ko waral de te loolu dina am opportunité laa am ni pour leeral ko because dama ko laaj waaw man maa mujjee jóg maa mujjee man lañ mujjee identify pour moo ñëw taxaw as the candidate man two weeks laa am pour candi pour pour euh, période bi ñu ma identifié ak période bi élection bi war a take place ñaari semaine la ak some days about six days waaw two weeks la and six days because um, time bi maa ñëw pour bi ñu ma identifié nomination B was um, for na three three days, three days to four days. So sila wara muna prepare for wara dem nomination. So preparation bo pour nomination, joxut ma one time bi pour ma wara dem round pour duga ci gox yi ak yooyu place yi ak yi ni di wax nit ñi ak yooyu pour suma candidature non ngi prepare pour suma nomination to try to gather with the help of the regional executive léegi loolu mu cause déliance bu mag a mag a mag a mag a mag si pour man ma war a dugg si biir nit ñi dugg ci gox yi place yi nga wane ne moom la war a dem ci municipalité bi pour mun a identifier suma boppa pour mun a dem jébal suma boppa pour nit ñooñu comme man suma adversaires yi ñoom lañ doon def man balaa maa ñëw sax muy time councilors because man su ma xamoon ne may taxaw time councilors bi man tam dama doon àndaa suñ councilors di demal raaw na ñoom even though dama daan dem raaw na ñoom sax di leen jàppale ak yooyu noonu suñu waaye mënuma introduce suma introduce suma suma bopp as the mayoral candidate because ni kon perfect opportunity la doon nekk pour man waaw waaye because of dama leta ñëw moo tax loolu dafa dem ba passé man man ñu ñor maa jël pour moo war a ñëw taxaw bu taxawal euh, parti bi ba tax na ba côté housing estate bi ma dëkk nii taxawuma ci benn kër benn kër laa dugga mooy suma kër anti waaw amul beneen ker bu ma duggaat sax pour taxaw ne leen damaa taxaw san la ma karta Bakoteh fu ma dëkk laa la wax two hundred thousand units óol Bakoteh bi nga xam ne moom mooy suma néebo taxawu ma fa pour campagne Kololi bi nga xam ne moom mooy suma next door néebo tam taxawu ma fa pour campagne Manjai Kunda bi nga xam ne mooy sama immediate néebo tam jàkkaarloo moom taxaw ma fa pour campagne similarly Dibakunda similarly euh, Latrikunda Jaman Similarly, Kanifing Estate. Similarly, Kanifing South. Similarly, bakaw Similarly, Manja Ere eh, Nakalengowati, uh, eh, Joswang. fi ma la tuddal nii yëpp teguma fa suma tànka pour campagne wede meeting la sport meeting la o dem dootu doola defuma demuma fi ma la tuddal nii yëpp teg suma tànka mooy London Corner eh, Talinding Fajikunda Bundung waaw according to suma itinéraire bi ak kóotu because kóotu kuwaare foofu laa defee suma um, force rally ñaari rally rek lañ ñu allow according to independent electoral commission because dañu jox uh, campagne itinéraire te man Pa Modou man dama respect itinéraire bi itinéraire dama ko follow man xetuma sarta ci benn boor te man mun naa laa génneel videos waxuma la nataal de ay videos yoo xam ne man fiñ ma assign pour ma nekk fa parce que itinéraire bi li tax itinéraire bi am mooy comme tey su fekkee ne maa ngi ma jox eh, la exemple maa ngi campagne Bakoteh Bakary Badji waru fee ñëw Talib Bensouda waru fee ñëw ak tintam ñi man maa fa war nekk suma place la fañ nekk itam man waruma faa dem man loolu dama ko respect dama ko follow IEC naka returning officer bi jokoli mun naa nekk suma sernde waaw ñoom sidee yëpp mun nañoo nekk suma sernde because bi gars yi di violate ñoom ñoom di campagne itinéraire dañ leen vidéo woon yónnee leen ko ñoom ay si am na bu ci boo boo xam ne ni sax London kono la PIU yi ñoo ñëw taxale ñëw PIU because ñu fa woon waa NPP ñu fa te ñoom waroon faa nekk maa fa war a nekk so man dama respectoon di campagne itinéraire waaye ñoom respectuñ ko woon xaw ma nag of UDP waaye UDP ñoom mosu ñoo ñëw suma line mosu ñoo cross suma line waaye NPP moom fu ma dem fekk leen fa o oh, damaa ñëw ñu ne gaa yaa nga ne leen di dem ñoo seen moto yi su ko defee nataal leen snap leen ak yooyu di ñoo gis di daw fuñ ci taxaw gaa yi dem fa fu ma war a dem gaa faa dem te ñoom ñu ngi am ñu ngi seen seen place yi dem ñu fa dem ñu faa dem te ñoom ñoom ko financial masul man one hundred and ten thousand la campagne suma parti loolu lañ ma jox xanaa benn ñaari nit yi nga xam ne ñii di la ma defaraat tisaat ñii di ma may sàkku maalo fële pour suma sécurité yi nekkoon ci kër gi fii ak yooyu pour dunda bi wàllu bi ak yooyu waaw <laughs> ak essence si léegi yooyu noonu waaw loolu moom maa ngi ko doon ab waaye hundred and ten thousand dollars si la campagne yi whether you believe it or not loolu la ma suma parti jox sixty sixty thousand lañ ma njëkk a jox after ñu joxaat ma fifteen thousand eh, fifty thousand after a week waaw after a week ñu joxaat ma fifty thousand loo xam ne óor na ma óor yàlla óor Muhammad ne man suma adversaire si ñoom may nañ loolu nit xaalis boobu ekkati nañ ko may ko nit sax mbaa may ko groupe oo jëndal leen ko bagage or something man loolu laa campagne so ak li ma la wax nii léegi ne place yëpp teguma fa suma tànka so kon yow war nga understand eh, xëj na looloo waral suma results man suma war a ma war a score that uh, minimal result of five thousand one hundred waaye su fekkoon ne amoon naa time bi gars yi amoon kon ne time bi bi councilors di di di di before the councilors election man gars yi identify woon nañ ma as a candidate di kon dama doon jóg def loolu place yi ma laa wax ne daw ma fa nii yëpp naa fa dem Bakoteh bu ma dégg nii sax di kon naa dugal dugal kër bu nekk waaye Bako Bakary uh, Badji moom uh, Besam bi mu ngi fi opposition man suma koñ fii every day man ngi leen a gis man dewuma Bakoteh dewuma round dem moom mu ngi dem round man fi ma dëkk gars ko fi nekkal ñoo xam ne sax suma famille lañ ñu ngi ko fi nekkal so this is the situation about man suma suma suma candidature te amul dara lu ma ci regret wallahi I will do it all over again if I have to waaw because really bo connect na ma ak ay doomi adama isiwaat na ma to man Pa Modou Mbowe the how I used to be from my youthful days here in the Gambia bala ma travel because fu nekk laa dem fu nekk laa dee dem si lu because I'm a sports guy I'ma play football basketball volleyball table tennis everything as a matter of fact I was a PE teacher at Nusrat High School you know most of my first legacy fii Gambia so really uh, the dafa of my touch base with the people I miss because tase woon naa ci ay nit yoo xam ne fooguma woon ne naa leen gisaat wallahi te am na ñoo xam ne tam ba léegi tey mit naa leen for for the very very first time during the campaign I wish na ñooñu ñëwoon suma life sax before and they will continue to be in my life which I really cherish waaw te it ma wane ne tam ne five thousand one hundred vote um, uh, electors yi nga xam ne ñoo ma votal noonu su ma la waxee ne kenn ku ci nekk da nga ko def out of your own will parce que man jënduma karta man su ma rali su ma anything lu ma daan def nit ñi ñoo daan use seen own resources and come to me su ma la waxee ne apart from um, uh, añ yi ñoo tooga ak yooyu noonu xëy na si suñu rali yi lay ak yooyu noonu gele-gele sax yi ngi gën a gis ñu toppama noonu yëpp nit ñi ñoo dee contribute jël seen gele-gele toppama ah ku ku am hundred and ten thousand rek pour pour campagne kooku <laughs> am nga am amuloo enough xaalis di <laughs> pour pour pour ne da nga war ya, may nit ay may di joxe xaalis di pasar pasar di jënd ay karta fii ak yooyu noonu man loolu ikati bi sax because jënd karta mu ngi mel man maa silent parce que indi event ne man su ma bi war win sax bi war a yow man su ma defee lu bon sax yow warloo ko doo ko mën a wax su ma naka sudut non sax yow doo ma challenge simply because jënd naa la da ngaa nopi, da ngaa noppi waaye su fekkee ne yow da nga jël sa initiative yëpp ñëw support ma su ma winee su ma fekkee ne sa o sax au moins def loo loo xam ne man promise ma ko woon yéen mun ngeen sol seen dalay ñëwaat suñu office ne la yow waxuloo ñu woon li ñun soo gisee ñu toppoon la li ak lii ak lii la te yow waxuloo ko ko def li nga at least di ngeen ma accountable bot su ma jëndee seen e, carte yi jox leen xaalis pour ngeen votal ma man lu ma mun di def tam da ngeen rek because yéen li suma xaalis ngeen lekka yéen foo leen ma mun a taxaw may leen suma lekka suma ngeen comme le président Barrow defoon fii National Assembly members rek wan leen leen moom ten thousand dollars la leen di jox brown envelope so kenn caleñatu ko kenn waxatu nothing so this this is something that we know it was um, loo xam ne bokkutoon suma campagne at all so ma ñëw nag xëj na loolu dina dina dina satisfy <laughs> si si si affaire yi suma candidature bi uh, ma ñëw nag si last and final question bi lan moo tax ma resign lu tax léegi waaw ak fan lay dem waaw li tax ma resign nag wax dëgg neex yàlla loolu moom pour continuation la waaw parce que euh, nekk naa ci political arrêté bi nag for a very long time nag fi nekk ni te puus nañ fi puus boo xam ne dafa require woon lot of energy lot of effort lot of time lot of money health yëpp sacrifice boobu noonu yëpp a ci nekkoon ñu pousse pousse bu métti mooy time bi ñu split yes to alliance ak no to alliance waaw dañ ñëw fast forward dem presidential election you know with Mama Kandeh support supporting GDC on that ñu twin am nekk am am coalition you know ñu jógee ci loolu rek ñu ñëw songa um, National Assembly elections waaw te loolu ñun ñu doon ak ñi doon wax ñi wax yes to alliance parce que ñooñu ñoo amee woon suñu député yi incumbent <coughs> ñoo amul ñaasiyan ko so loolu nag jëloon nag a lot of toll on us because amul woon finances nga ca ngalamatu APRC Babili Mansa militants yi supporters yi ak sympathisers yi chat groups yi ñoom def seen effort make sure ne raise funds pour jàppale uh, what we were doing mooy di campagne ba yàlla def ñu am fa ndam am fa juróomi député the most dynamic sax député fi ci réew mi alhamdulilahi rabbil alamin ñu jógee fa nag ñu ñëwaat tam ci local government bi councilors kan yi councilors kan election yàlla defoon nag ñu amoon thirty six eh, thirty nine candidates yu taxaw lépp lu mu nekkoon taranga mu nekkoon alhamdulilah ñu sante ko yàlla waaye yàlla def ñu am fukki député fukki councilors kan waaw loolu tam ñu santa si loolu yàlla bu baax a baax mayoral bi tam ñëw same ak chairmanship bi ñu am ñetti candidate waaw Sierra South um, Brikama Area Council ak KM muy man Alaaji Jeye Sane fële Ibrahima Jeye Sane astafurlah ak uh, Alaaji AS Boy ñaam um, uh, Sierra South so loolu nag mu jël nag am tam beneen énergie beneen finance beneen uh, everything all the package mu nekk nag loo xam ne dëgg jël na nag mu loo most of my time personally and jël na time tam pour su suma responsibility si and jël na ta tool bu mag tam su suma family immediate family so ba tax nag ne um, fi mu nekk nii ndegem election cycle i moom jeex na di next election cycle is gonna start in 2026 muy presidential waaw so kon obviously ñun war nañoo mën a jël nag back seat bi you know allow xale yi ñu ñëw jël responsabilité si ñu pousse su ko defee ñu guide leen waaw ñu use suñu expérience itam di guide guide leen nga xam ne continuation bi la parce que ñun loolu suñ philosophie la suñ principe la waaw fi ñu ñoo fi isi APRC nguur gi moo fi isi xalel moo dugal xalel si Protex mooy li ma la tuddal moom kër mooy ñoom Sidi Ndiaye ak yooyu ñoom Babou Guèye Sonko ñoom parlementaires yi ñoom as parlementaires ñoom eh, naka lañ ko waati moom Modou Sabale ñoom Fatou Camara ñi ñëpp sax ak ñeneen ak ñeneen Fatim Badji ak yi on a sànq xale yi ñu ci dugal ak jigéen yi yooyu noonu yëpp so obviously loolu principle buy continuation yow foog nga boole xale yi ci li nga def because soo leen ci génnee yow kon amuloo continu continuation bi because mag ñi rek suñ mag mag ñi mag ñi ñun suñ bàmmeel moo gën a jegeñ di suñ mag ñi deyee nag moom ñaan beneen mag moo ñëwaat déedéet xale yi am nañ duga duga am nañ génn génn président Jammeh bi moo ñëw di fii di nekk président 29 years la am amul 30 years sax soo te xale la xale la wa loolu éji eh, eh, eh, la eji xale la twenty nine years eji xale la waaw amagutoon jabar sax ci time boobu noonu so kon alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla bu bëree bëree bëree bëri bëri so loolu tax rek ñu joxe um, um, tekki ndombo tànk bi as the spokesperson you know pour nekk um, on the self you know because tey soo seetee si political arena bi ah gars yi ñoom duñ leen resign de non non non non tey lii de si fa nekkoon dema si parti yi yëpp ñëpp leader bu fa nekkoon li moom moo fa nekka ba tey cuk UDP la NPP GDC PDOIS as a matter of fact is the longest serving eh, opposition party because ñoom depuis time Jawara ñoom fi 86 ñoom fi eh, PDOIS waaye benn leader leader yooyu rek a fa nekk di Sidiya la eh, Khalifa Sidiya Khalifa Khalifa so they don't want to give chances to the young people And then we are saying, yes, we give chance to the young people. So, whatever, you know, on the back, uh, on the shelf, you know, as their you know, guidelines. ku <coughs> you see ni tam expérience and you provider a ko muna nañoo def ay retreat sa you know then the defal ay workshops di di train at yooyu noonu continuation bi that's the only reason Wow, wow. why am I heading nak? dëgg dëgg heading fenn parce que su fekkoon ne dafa am dama doon by APRC Babili man sabi bi ma pour war a dem si beneen parti loolu laay déclare parce que man Pa Modou Mbow Ganaare kenn nenu ma te wax naa la si sa njëlbeen ne kenn indiwuma APRC ma fa yóbbu suma boppa suma ma fa waroon a su fekkee ne dama fi bëggoon a génn nag pour dem ci beneen parti tam loolu laay déclare ne maa ngi bàyyi fii kat te fële laa jëm waaw loolu nag amul benn political party right now or political leader bu mun a taxaw léegi ne wax naa Pa boobu Mbow promise na ma ne dina ñëw loolu su amee na ko ku gën a mu ñëw wax waaw waxuma kenn Mama Kandeh rek moo ma seen message di ma laaj ndax suma resignation bi tout is true ma lettre ba ma binda moom la ma forward ba pare laaj ma is this true ma mu ne ko yes mu ne ma ok foofu laa ema moom loolu mooy suma conversation ma moom parce que rapport boobu am nañ ko demoon nañ ci coalition te lu eh, coalition boobu noonu sax suma initiation la man maa dem office am laaj ko loolu ndax dañ ñëw pare nga pour ñu def coalition mu wan ma ne ma APRC la APRC la politics so lulu lu ko jox benn problème man noonu la fa jógee juno dem wa oote pour ñu toog ñu meet pour ñu discuss about that because mënuñu woon a contest mënuñu woon a ñàkk a ci at that time président Jammeh fidi fi di te ñun amuñ candidat so obviously ñun ñu mën a tahu rek ñu taxaw as président ni sala amuñu bisa bi sax so foog ñu nit pour engage suñ suñ suñ suñ militants yi dañ nit pour engage bokk ci eh, ci political activity bi xew su ko defee ñu mun a keep di ah, momentum going mel ni taal xamba xamba xamba taal bi daal bañ mu pour mu fay parce que su fekkee ne involve in anything suñ gars yi dañoo yadaaj bi dañoo toog noonu te soo as a citizen da nga war a vote mun na laa yóbbu tax nga dem feneen voté feneen so loolu war a loon ñu am dat coalition président Jammeh endosse loolu waaw ñu def ko waaw teg waaw bañ jógee ci loolu nag ñu noonu si lañ dem si national assembly ak yooyu waaw soo mu nekkal loo xam ne continuation la because loolu jox nañu springboard ba tax na suñu nit ñi naagoo wuñ tooguñ tam ñu ngi woon in motion so ba ñëwee ci national assembly tam ba léegi rek momentum boobu lañ siis rek you know rek continuer ko ba mën a am suñ juróomi député yi so really and truly a aw ma benn intention de li future bi xool nag man Pa Modou Mbowe xaw ma ko parce que li xew in the next five minutes xaw ma ko parce que yaayu ma boppam waaye man Pa Modou Mbow maa ngi APRC Babili sax foofu laa nekk su ma nomba tànka loolu laa tekki as di spokesperson mooy ki amee lameñi parti bi loolu laa leen delloo loolu laa leen jox pour ñu jox ko ndaw ñi parce que pour gën a taxaw wax loolu du benn problème spécialiste soo xamee li nga wax waaw am na ñu si bari sax ñoo xam ne ñoom dégg nañ joolaa dégg nañ su séeréer dégg nañ olof dégg nañ soose dégg nañ english ak yooyu so at least tànn nañ ma sax man eh, eh, anglais olof laay laaka bi ak tuuti mandinka waaw so si ne amna koo xam ne mun naa lakka yeneen lakka yi sax yooyu kooku soo bii ñu jox ko liggéey bi let them do it so loolu la rek a tekki ndombo tànk la rek à peu près pour mun a am time na pour suma boppa léegi man ñaari at yi almost two years yi nga xam ne maa ngi ko liggéey ci alafudi bàyyi suma soxla yëpp bàyyi suma liggéey yëpp bàyyi suma njaboot gi ah waaye nag ma mun a delluwaat nag si suma njaboot gi nag ba pare delluwaat si suma soxla boppa yi waaw <laughs> ma ne ko mun a delluwaat nag si suma soxla boppa yi sax toppatoo waat sa bank account bi sax waaw ah, because loolu moom is empty soo moto baa ngi nii taxaw five months la la wax mu ngi taxaw mais amul dara lu ma ci mën thirty seven thousand la moom laa soxla nii tam ba léegi su ma xaalis boobu sax du ma ko ci def waaw dinaa ko def si suma priorité yi suma biir kër gi ak suma boppa daan ma ko def si moto fi mu nekk soo gis nga I need to just need to be to to to do me waaw man dama war a def suma booba fi mu nekk dama war a toppatoo suma soxla yi suma njaboot gi tam parce que maa ngi may set awma benn sax awma ñaar awma ñetta juróom-ñetti sit la am kaar waaw su ñu loolu yëpp dama nit pour enjoy suma famille bi at least waaye still naaw maa ngi ci pati bi waaw alhamdulilahi rabil alamin so um, Salif ci gàttal daal li la mën a tontu uh, te di la déglu pour yeneen tontu yeneen laaj yoo am tam pour mu ko tontu parce que man moom maa ngi fii di besting thing rek loo mën a li nit mën a def rek mooy pour mu laaj ma waaw soo bëggut a dégg nag moom bul ma laaj parce que man dëgg rek la am àjjana laa bëgg a dem aw eh, ma daan fen ba temps mi wax waxi boosoor oo oh, di wax loo xam ne lu ma xamut la mboolem lu ma suma gémmiñ di ko wax mun naa koo defen ba àlaxira waaw because lu ma xam la leer la tam wax urut ko wax di la gërëm Santa, di Santa tamsa di sam sa viewership bi eh, waa waa Diamond TV yeb wa di leen gërëm di leen sant maa ngi laa déglu Salif wa rahmatullah